الضيق asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi bokk taalibe yi ñu leen di nuyu di leen ziyaar ci weeru tedd wi di weeru Ramadan di nuyu al imaam Serigne Bousso bi di ko masawu ci ci coonee gi xam naa du ñeme lool di nuyu booleem mag ñi ci fekk ak mbokki taalibe yi. ñu leen ziar bu baax xam naa waxtaan ci kilifa sax di day mel ni dañ ko doon xaw bëgg di ko néewal ndax euh, waxal waxal kilifa lu mu waxut day day day yomb lool ci waxtaan bi waaye comme xalaat yi ne comme sëñ bi moom sëñ Tuubaa moom mooy euh, mooy mooy mooy texte ñoom dañuy saraa texte bi day mel ni bu texte taxawee daanaka saraa jërul bi gën seen itte la seen yéene la a gàntu euh, li ñuy njëkk wax rek mooy bu ñuy waxtaan ci sëñ Saliou ñuy ngi waxtaan ci doomi sëñ Tuubaa yëpp day mel ni ñoom kenn ku nekk dafa am loo xam ne sëñ bi daf la koy liggéeyloo faral di wax ñoom daf leen daf leen waxoon ne leen yéen ci nit ñi laa leen di liggéeyloo loolu la sama dégg mu nettali ko ne euh, sëñ Basiiru ak sëñ Fallou defe naa ak am na ñu ci doon nee na daf ne sëñ leen yéen ci nit ñi laa leen di liggéeyloo nee na ñu ne ko ñu bi ñu génnee ñoom ñu ne waaw léegi comme dañuy tërbiyaloo léegi bu ñu tërbiyaa kenn ba noppi nu ñuy faj a aajoom ñu waxtaan xalaat xalaat kenn ku nekk xam nga ñemewuñu woon sëñ bi loolu nag ñu ne nañ dem laajoor ko bi ñëwee ba ci bunt bi mu am kenn kuñ doon wax rek mu dugg daal di ko ne kon kuñ war a faj aajoom nañ koy faj mu ne leen loolu seen yoon nekku ci loolu seen yoon nekku ci yan tërbiye rek laa leen def loolu la ci des ci ci man la nekk loolu kon day day firi rek li mu ne woon xuloo bu jumlati lazina aflahu li tawajjahat wa rabbil muslim ñi laa texe ñëpp dëgmal lañ ma waaye nag kii defar kenn la te mooy yàlla ginnaaw kooku nag du fi jug mukk jamono bu nekk ñii ne ci ron njabootu sëñ bi maanaam liggéey yooyu bu jamono bu ñu koy def la ci war jamono bu ne yàlla mi nga xam ne du fi jug mukk moom mooy mooy féete war bu ko defee nag bu ñuy wax ci nitug yàlla lu am yu am solo yoo xam ne mën na ci bàyyi xel nitug yàlla dafa am ñett yoo xam ne def ci ñaar yi daf ci raw nit ñi benn bi mu yem ci nit ñi bi mu yem ak nit ñi mooy ni nga ni muy ni muy doxe ni muy tislee ni muy sëqate yooyu maanaam doonut loo xam ne lu ñu ko wax di roy moom nit ñi ñoo ci yem ni muy soloo yooyu day mel ni lu bare bare ci murid yi dañuy gën a xir ci bu ñuy roy sëñ bi ci ci ci ni muy soloo ni muy waxee ni muy xadami ko te loolu moom ñëpp ñoo ko bokk le benn nooy naa sëñ Saliou gis ñu bari koy roy ci attaaya ji woyof te naafile yeeg yeneen yëpp nekk yoo xam noonu ci tere day mel ni boobu moom di bàyyi xel bi ci dolliku mooy bi nga xam ne moom da cee raw nit ñi kenn mënu ko cee tax mooy karaama yi loolu it dees ko ci roy moom day day loo xam ne dangay ne ci yoon ba ba àgg ci waaye day mel ne loolu itam da ci da gën a insisté wu lool bu ñuy wax kilifa li nga xam ne karaama yi day mel ne ñu bari mu la ñuy xaar fekk loolu itam li ma déggoon ci Moussa nee na karaama ak diw la kenn du ko naan da koy booleeg dara lekk rek loolu itam lu ma di bàyyi xel bi ko bi nga xam ne nag moom daf cee raw nit ñi te manees ko caaroy mooy jikk yu baax mooy yi nga doon wax léegi makaarimul axlaax boobu mooy li nga xam ne moom moom lañ war di roy ci ñoom jamono bu nekk mooy li nga xam ne <coughs> yonent bi bi muy ñëw moom moom la moom la ñëwoon ngir mott li sëriñ bi bi mu ñëwee moom la rawee ñëpp moo tax nit ñi euh, toppe ko lool mu jikko jooju ñoom nag muy nit yàlla yi dañuy dañoo ñëw ngir euh, wane ni lislaam lu wér la wala awliya addilatu tasxiixi li diinihi wa sidqihi saxiix ñoom li ñuy tegtale mooy lii nga xam ne mooy diine lislaam ji lu wér la ndax wane nañ ci loo xam ne bu lu wérul woon lii duñ ko duñ ko mën a ni karaama yi ñu def ak yooyu yëpp yu mel noonu lii benn waaye mos bi wax nee na man ni léeg-léeg sax daal damay xaw a sikki sàkk ci lislaam waaye nag bu sama xel demee ci sëñ Tuubaa siñ na sëñ laa dul xam na ma koy def kon ñoom dañuy ñëw ngir wane ne lii mooy diine ju wér ji li mooy euh, dëgg-dëgg euh, diine sëriñ Saliou nag radiyallahu anhu kenn ku ne ni ma ko waxee léegi ci ñoom dafa am loo xam ne moom nga doon lëkkee ci nit ñi lépp nag ci ci defar defar la jëm waaye xaj na léeg ñu wóote ay jumtukaay yu ñuy yu ñuy jaare waaye moom day mel ni lépp daf ko jël boole nga xam ne moom mujj ci doomi Sëriñ Tuubaa nga xam ne mbooleem ñi ko jiitu ci ay magam kenn ku ne ci ñoom liggéeyal na la ba am sa ngërëm loolu kilifa bu ko nettali nee na bi sëñ Modou Moustapha wàccee liggéey dafa am koo xam ne xaritam la woon lool ñëw di ko di ko di ko jaale boobu sëñ mi ngi got nee na mu di ko jaale daal ne ko man de foofu suñ fàllu yi toog sax ma sañoon yaa fay toog waaye nee na keroog loolu metti na ko lool nga xam ne keroog nee na bi muy bi muy jógee got ñu koy di dem aaneen pour ñëw Tuuba fas wi dañ ko ci doon waral mënta war fas ngir loolu nga xam ne bi mu fi jàllee ba mu dellusiwaat ko mu mel ne dafa dagg waaj wàccu bi ko laajee mu ne moom de li ma wax ba doon aw ñoom suur naa ko moom waaju ndax ñoom ak sëñ Tuubaa kenn ku nekk am nga lu sa morom amul rek ci nga koy jot te loolu moom ma wax muy nekk ci foofee suñ fàll war ne boo fa nekkoon ñeneen ñi ci des du ma mën a làq seen gën nga daal gis ne kon waaye su ñu koy fàttaliku nag comme jant xaw a gàtt bu ñu ko war fàttalikoo faax bi wax na ko léegi muy xam-xam jàng ba am xam-xam nga xam ne looy leeral moo leer la loolu day ponk boo xam ne mooy jiitu ci murit gi bi euh, sëriñ bi sa sanc yoon yi <coughs> groupe bi ko jëkk a topp ñëpp ay ay ay ay xam-xam lañ doon jàng ci préparu sëñ Mamadou Sall mooy ñooñu nekkoon ci machine Mamor te bi machine Mamor bi ñu continué jàng ci moom kon loolu ponk la boo xam ne war nañ ko fonk rawatina ci mel ni kër Sëñ fexe ba xale yi fi juddoo jàng alxuraan waaye itam li ñu war a xam seen diine ñu fexe leen ko xamal bu baax a baax boole boobu njàngam alxuraan suñu koy fàttaliku ba tey danañu fàttaliku itteewoom maanaam alxuraan ni mu bëggee woon alxuraan jàngum alxuraan nga xam ne xale yi ku ci masaana wattu alxuraan lu mu loo ko fekkeel ci poche bi daf koy génn jox ngir royee ko Sëriñ Tuubaa ci ni mu bëggee woon alxuraan ak ñi nga xam ne ñu la ci daan soññ nga xam ne kenn ku ne ci ñoom boo watoo alxuraan am na nga jum la warlul joo xam ne da xam ne wattu nga wattu alxuraan war nañ ko ci roy bu baax fonk jàng waaye roy ko it ci xas jàng xasida si bi na ko léegi jàng xasida rawatina ci réew mu mel ni eh, fii loolu lu lu fi am sol la ndax sëriñ sama xasida day fóot xolub murit ginnaaw nag kon dañu nekk ci réew moo xam ne réewum ay ñu lu diine lañ di jaxasoo ak ñoom jamono bu nekk ñuy ñëw ci kër sëñ Tuubaa gi di ko dajaloo di jàng xasida loolu lu am solo la loo xam ne war ko ci moom ndax moom bëggul xasida la koo xam ne eh, yi ab téere la leen moo la leen boo xam ne sas la ko tudde sas wi mooy téere yi nga xam ne mooy muqaddamaat jës bu ma waaxe bi yooyu yëpp ci la ci la ci téere ci ci téere boobu ñuy wax sas bi ci la nekk mos naa dégg sax moo wax ne moom bu njëkk moo ko daan bindal boppam moo bindal boppam ba bi suñu Abdou indee machine mool boobu ci euh, Touba ci la ko sàkku ci suñu Abdou moom moolal ko ci ab lim wax ne sax suñu Abdou booba daf ko laaj lu ciy doy nee mu ne ko xam naa jërul muy ëpp yées waaye kon lu mu toll rek baax na suñu Abdou ne kon ci moolal junni waaye xam naa ne danga dem ba soxla ci juróomi junni euh, yàlla dogal am na bu nekk si ngooña doon ko indil ay ay xasaay bi moo leen boobu boobu fi lañ fekk bu ñëwee mu nettali leen loolu daal ne li ci gën a yéeme mooy juróomi junni yooyu sëñ ab laa tuddoon te li ngeen indi tolloo ak loolu nga xam ne yooyu yëpp yi wane ni xërewal ci xasaayit ak ni mu bëggee woon ak di ko déglu ak di sonn ci mag ñi daaj yi nga xam ne ñoom lañ daal daaj sëñ bi di ko dégg mu fexe ba dong yi di ko mën yooyu itam yëpp yoo xam ne daayira yi nekk fii ñu di ko bàyyi xel ci fexe ba daaj cosaan yi nga xam ne ñoom lañ daa daajal sëriñ bi euh, ñu fexe ba sàmm ko di ko fi di ko fi jàng ndax dana wax ne xasida fu kàddu gi toll fa la seytaane yam du agsi loolu kon man di fonk jàng di ko durus waaye di ko yëkkati itam waaye itam toog di ko déglu ndax déglu bi eh, ak ak jàng bi eh, ñoo su ko defee itam suñuy fàttaliku sëriñ bi danañ ko fàttaliku ci ak mën muñ nga xam ne jullit bi ku yàlla bindee bind ko ngir yi nekk àjjanaam kenn ku nekk na nga am ay nattu yoo xam ne moom ngay jànkuwanteel ci àdduna ñu gis <coughs> moom ak dundam yëpp ay daanaka la daan jànkuwanteel yoo xam ne doo ko xam ci moom waaye eh, muy lu metti ci biir waaye yàqalu ko jaxasoom ak nit ñi yàqalu ko liggéey yi nga xam ne moom la baaxal loolu itam kon jullit bi nga xam ne mooy jub loole ndaw liy jub mu xam ne faw jullit bi dana am yu ne ci sa kanam yoo xam ne ay nattu la yoo xam ne faaw yàlla di la ko teg waaye yooyu bu mu dox sa digganteeg sa liggéeyu àdduna bu mu dox sa digganteeg sa sa jaamu yàlla bu mu dox sa digganteeg sa yelewaan xam ne lépp loo xam ne yaa ngi koy am ci ay métit ñi nga fi nekkal ci ay tubaab ñi ngi koy am te net métit yi ngay am yow yaa ngi ci am looy séentu ci tiyaaba loo xam ne ñoom amuñu in takunu a fa innahum ya'lamuuna kama ta'lamuun wa tarjuuna minallaahi maa laa yarjuun loolu murid bi da ko bàyyi xel jamono bu nekk loolu it bu ñu koy fàttaliku danañ fàttaliku ci moom ak ñàkk yàkkamti àdduna xam ne lépp <coughs> yàlla mën na koo jékki-jékki sottal waaye sunna kaw ni ya ni muy doxe day na ak ci ab jullit bu jékki-jékki li nga bëgg nga daal di koy am ci saasu faw day ñëw par ndànk nag kon nit ki ndaw li toll ci jub mu xam ne wërul yàkkamti wërsëgu àddunaam ba tax muy dugg ci loo xam ne waru cee dugg wala muy def loo xam ne waru ko def ndax ñu euh, euh, ko yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waxe ne mu ne na ngeen ragal yàlla te rafetal wutiin wi ndax jibril wax na ma ne ma balaa kenn faatu li nga war a lekk ci àdduna lépp ci wërsëg da ko lekk kon loolu suñu ko dee bàyyi xel dana tax xool ko moom itam ak mbooleem waa Kër Sëñ Tuubaa yi seenu njëlbeen nga xam ne ni ñu baaxoo nekk ci ay coono coono ñàkk ak am loolu dañ ci jaar ñoom loolu itam buñ ko xamee noonu rek kon ku nekk ci yow ci ci ci ci ci xam ne lu jot ci yow dana dana dana dana dana yomb moom bi muy tàmbali daara yi ay mbaam lañ daan bay mbaam yoo xam ne sax bariwul loolu lool mujj muy dem di dem ba mu yàgg mu am ay nag mujj mu dem ba mu yàgg mu am ay tracteur loolu lépp boo xoolee diggante ba muy am lee ak ba muy am lële di fi dox ci ay coonaak yooyu moo lay xamal ne kon yàlla li muy joxe du jékki-jékki joxe mu daal di jàpp di tasaar <coughs> suñ koy fàttaliku dañ ko fàttaliku ci ñeme liggéey maanaam kasbul xalaal ndax boo seetloo eh, daara yi mu sanc yëpp liggéey ak jaamu yàlla moo tax mu sanc ko lañ fay liggéey lépp itam da ko daan delloo ci ci ci ci ci ci yoonu yoonu yoonu Sëriñ Tuubaa loolu itam loo xam ne ku ko yoroy war nga ko ndax Sëriñ Tuubaa mooy sama wajur loolu defe naa doy na ak ceex doy na daraja riyaay waaye ñoom loolu doyloo wuñ ko kenn ku ne ci ñoom da nga sanc say daara liggéey ni ko nit ñi baax a defee nga xam ne xaaroo maanaam addiye yi lay dikkal wala li la leen ñuy waatul waaye nga jàpp ni ni ni ni mu waree ñëpp ni la la waree ndax liggéey jaamu yàlla la loolu itam kon des koy roy ci moom bi ci dolliku maanaam nga jàpp ne liggéey bi ngay def nag defoo ko bu nekk lu neen rek ak jaamu yàlla waaw liggéey jaamu yàlla li ngeen def jihaad la bu fekkee yaa ngi ko ci yéene nag nga xam ne li ngay am da ngay yéene delloowaat ko ci yàlla ndax fi ne li nga liggéey eh, jox ci sa soxna jëlee ko ci yéer wala dara loolu fi ne maanaam da nga ci am loolu du ak neen li nga xam ne bu ko doon keneen doon def ku dul ab jullit nga xam ne ci bakkanam rek la yem wala ci ci loolu ñu ñu jàpp ne ak jaamu yàlla la nga xam ne yow boo fi toogal ab diir bu yàgg te li nga am ko ni nga ko amee itam ni nga ko bëggee woon teewul am nga tiyaab nga xam ne moom ñi daan nawet yi daf daan wax xool nawet bu baax ak bu baaxul nga day mel ne nawet bi gën a bon sax du ko xàmmee nawet yu baax yi loolu kon liggéey bi muy def moom daf koy def euh, jaamu yàlla rek dañ ko fàttaliku it ci ak bennoo moom sëriñ bi mbooleem tarixa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew ñëpp daf leen a jàppe ñu tarixa gis naa ba tey yi ñuy ñëw di jébbalu di ko laaj werdu fekk am na werdu yu ñu doon werdu mu ne leen boole leen ko ak werdu bi ngeen euh, jox leen werdu ma ko leen boole leen ko ak bi ngeen doon werdu daal ne bi noonu la daan def nuurun ala nuurin kon loolu ko murit bi royee ci sëñ bi képp kum nekkal kum bokkalul tarixa na ko jàppe ni boppam jàppe ko nii yéene ko li muy yéene boppam moom sëñ bi daf daan wax ne dama leen di xaar su ma leen rawee su geesoo bi suma leen mu dëpp wut si leen loolu noonu la kilifa nekkee ci kanam njabootam xam ne lu ma lu lu yàlla xatul du ma ko du ma ko xatal du ma xatal lu yàlla lu yaatal yooyu yëpp yoo xam ne ñu ko roy ci moom bennoo xam ne murid yëpp ñoo bokk sëriñ sëriñ benn la muy sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa mooy centrale électrique mooy jox leer kuy am leer alquyuba kalkali munira qulubi hasbika wa astia noora defal lii jóge ci man ci ay leer mu muy leer yu yànj bu ko defee nag nga leer nga nga def ko mu mu mu mu daj sa kuréel bi yëpp te mooy murid kon fu fi am murid nekk ki nga nga xam ne mooy sa sëriñ dangay jàpp ne euh, courant bi ci sëriñ Touba lay jóge sëriñ Touba mooy central électrique bu fekkee nag léegi courant bi dañ koy séddale faw dañuy wut ay poto làmp yoo xam ne fu ci nekk ñu bu poto fu courant agul poto àgg poto yooyu nag mooy seex si mooy ñi sëriñ bi eh, defar ba noppi boole leen ak murid yi maanaam mooy groupe yi yim seexaloon rek nga xam ne kenn ku ne ci ñoom fa nga fa nga gox ba nga dem ñi fa ajuwul sëñ bi yëpp bu ñu aju ci sëñ ci yow la ñu jaar loolu mooy poto poto yi nga xam ne ñoo indi courant bi foofu waaye nag poto yi jotuwuñu ak courant bi dara dañuy yàlla courant bi waaye sëñ bi mooy courant bi <coughs> ndax fi ne poto lamp bu daanu woon teewul courant bi ñëw ci kër kër kër ki du xëj mooy nekk mooy ki nga xam ne euh, ci ni ci njëlbeen bi bi ñu ko laajee faju aju mu ne loolu seen yoon nekku ci kon loola mooy ki ko méngoo suñ ko xamee noonu nag ñëpp ki nga bokkal sëriñ ak nga bokkalul sëriñ da ngay jàpp ne benn ngeen yéen bokk benn sëriñ bu mag bi ki nga xam ne itam moom nga bokkalul tariixa itam nga xam ne yéen a bokk yoonu ngeen jaar ci mooy yoonu lislaam loolu bokk na ci nga xam ne war nañ ko royee ci moom baax a baax bi ci dolli ko itam mooy kawe itte kawe itte murit daa war lépp fu lu baax nekk mu jàpp ne loolu moom moo tax yàlla bind ko kawe bët ndax ku ne xam na ne sëñ bi bi muy sàcc xel koom bi muy ñaan xel koom boobu kilifa yu bari jaar nañ fi sàkk ko ci moom amuñu ko nga xam ne day mel ni jàpp nañu sax lu wërta mën a nekkati ba bi mu ciy waxtaan ak sëñ Abdou ko ne euh, sëñ Abdou Lahad xamal na ko jafe-jafe yi ak ni mu naqare jote mu ne ko waaye nee ma danga ci jot rek boo ma ko waxee rek naa ko jot mu ne ko danga ci jot loolu kawe itte la lu mu mën a doon lu mu rëy rëy nga xam ne yàlla wa sax lakum maa fi samaawaati maa fi al ardi jamii'an minhu lépp yàlla daf ko tàggatal mbindeef yi kenn ko nekk sa it fa mu toll euh, fa fa fa la sa am-am di toll kon loolu itam sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu noonu la meroon habliya wa habliyal habliya xayral xismi fil maqaasimi wali zawi diini bi jaahil qaasimi buy ñaan la gën a rëy la yoon may ma cër bi gën a rëy waaye itam bu ko jotee yéene waale ko maanaam yeneen mbokk jullit yi ci des lii sawi diini waxtar liyal ahsana fi kulli layaat wajal xayaat yelluhu xayra xayaat loolu di loo xam ne itam lu ñu man di ci moom la ci ay jikko yoo xam ne jikko yu yu bu ko defee li ci dolliku rek mooy xanaa di leen dénk di dénk suñu bopp ne fii ngeen nekk ay ambassadeur Sëriñ Tuubaa ngeen ambassadeur Sëriñ Tuubaa wax na ko léegi maanaam ci yéen lañuy ñuy xememe yoon wi ci yéen la ñuy xame yoon wi itam kon loolu kuy tuddoo Sëriñ Tuubaa rawatina mu nekk foo xam ne ñoom ñoo doonoon ay noonu noonu alxidaa yi mu daan wax yëpp fii moom France gi ñoom ñoo ko colonisoon Sénégal ñoo ko jëloon génne ko ñooy noonam yi gën a rëy jamono boobu kon bu ñu nekkee ci biir noonam yi gën a ñu fexe ba maanaam noonu yooyu gën a xame sëñ bi ci noonu gën a xeme message bi ci noonu loolu itam lu am solo loo xam ne boole ko ci li ñu foofu rek zairan abadan mukarraman biqiran